jot na Afrique ñi nga xam ne ñi ñoo toog ñu denk ñu voté leen benn yoon wala ñaari yoon ñu xam ne bu ñuy doxal dañu war a doxal li ñuy wax bonne gouvernance doxal ci naka doxal ci eh, jiital njëriñu askan jiital njëriñu réew te bañ a jiital seen njëriñu bopp ak seen njëriñu waa kër ak seen njëriñu parti loolu fi la génn ñu ci yëf ci dina mel ñaareel bi mën nga sax xëy na am yéene bu rafet bëgg a doxal waaye mënuloo amuloo résultat yoo xam ne feeñ na ci sa dund askan waaye bu boobaa da ngay nangu ne da nga war a xajal moom mooy alternance buñ la waxee ñaari mandat desal ñaari mandat nga dem ndax nag alternance bu amee day indiwaale yaakaar waxuma ne saa yu alternance amee ki ñëw dafay jëf-jëf bu rafet mu jëm ci di ci askan waaye dey indi yaakaar yëf yi wàcc waaye nga toog li ngay doxalee teguwuloo ko ci yoon li ngay doxalee indiwul tane ci réew indiwul tane ci askan nga toog ne ñaari mandat laa am maa ngi toggaat ñetti mandat beneen ñëwati ah loolu day musiba rek mën a jur yaakaar moom bind ko musiba dong la mës a jur te li ma jaaxal ci sañuy nga xam ne nii xew na feneen moom du leen mës a dal ndax ñoom à part lañu waaye lii ñuy wax ni xew na fi junne at ci gannaaw xew na fi téeméeri at ci gannaaw ci feneen waxatuma la nag mu xew barke démb mu xew tey kon jot na suñu njiit yi yow ba noppi nag di déglu ñu nekk ci opposition yi te bugguñu musiba bugguñu rambaaj ci dëkk bi bu ñu waxee moytu yi na ngeen ñu may leen nopp ne dafa euh, jaxasoog Sénégal jaxasoog boo xam nii bu ñu sojee rek ñu ñu tisooli donc seen seen xay suñu xay la seen jàmm suñu jàmm la loolu rek war naa tax ñu ñu fàtte di xam-xam xam ne mi ngi ci yoon di ñëw xam nga coup d'état ba ko tuddi rek ñu ne soldat si jël nañ gànnaay dàq nañ civil nga xam ne ñoom ñoo toog bopp réew waaye civil yi Afrique ñoo dàq coup d'état mooy askan wi li bëgg li kay di tënk li ñëpp déggoo nga ñëw setti ko teg ko fële xeetaru jël ngànnaaya jël koppar ya ku nga a toogee noonu a fa ne tey muy gën a boo jëlee téeméeru doomu aadama fay yeewoo mais jege juróom-ñaar fukk yi seen at matul ñu fanweer ak juróom ay ndaw seen jamono beneen jamono la seen gëm-gëm ak seen bëgg-bëgg ci wàllu ñàkk xëy yàlla ñàkk njàng bu mu seen yaakaar yu tas mais bu nekkee seen maam mataar yi ñoo leen bëgg jiite bëggu bàyyi seen gis-gis la seen jamono bokkul mayu leen benn yoon wuñ mënee seen bopp wala luñ mënee seen seen seen xarañ loolu bu yàggee fitna lay fitna fitna lay jur li fa am warta bett kenn suñu njiitu réew yi buñ moytuwul jéem a foqan ni moome jàmbur wala bañ a génnee seen loxo ci bool ba ñëpp jéppi leen ci doole ci pexe wala ci ay gàllankoor yoo xam ne da nga koy jël daf koy soppi koy ba ne faax fenn foo xam jur jàmmoo te a jafe-jafe yoo xam ne lu jafe woon a nguur ga ka mu xëccool amoon na quarante nangam pour cent téeméer yoo jël ñeent fukk ak lu jógee juróom amoon na muy Cellou Dalein Diallo moom moom fukk ak juróom-ñeent cote deuxième tour ba defuñ ko ci waxtu woo toog ay weer weer weer door koo def ñu ne gañe na loolu teewoon xel lool man sama xel teewoon na ci lool gëstu ak sama gëm-gëm ma ci xarit ak mbokk ak laa wax li ma gëm ma gëm daal mooy gor dafay doylu réew teraanga mënut a weesu askan yëpp dajee ña fa nekk gënoo leen judd gënoo leen xam-xam ëppoo leen lenn ñu la ñëpp la jox la njiitum wala fukki at ak loo ci defut tële la loo ca mottalul mais ku dem loo xam ne bëgg ko def te mënoo ko def mais ku fi yeewoon te këlëf dundatoo mais réew mi day continuer dund bala ngay judd réew maa ngi doon dund